jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey suivre Gaston Production mbokk yi mbégte la tey ñu teew fii Géejawaay tey ñu teew fii Caaroy wala ñetti mbaar jël si ki nga xam mooy Baye Mandiaye numéro ginaaw bi mu nekkoon ci liggéey bi nag voyagé dem wuti ju doole ba dellu siwaat fii ci réew mi dem na yaakaar naa ne andi na fi circulation bu bëree bëree bëri li ko dagee Pikine ba biir Géejawaay muy waajal combat nag le 28 incha allah ci digganteem ak jeex jàmm mu nekk làmbu xale nekk combat jànq nekk combat bu neex a neex a neex boo xamante bi nii amateur yëpp ñu ngi koy waajal ci biir loolu aussi tamit mbër bi ci ëpp mobilisation promoteur bi génn na wax ne di nga am kayitu terrain ko xam nag Baye Mandiaye ak Mandiaye yeey xam ne dañ koy déranger maa ngi lay nuyu bu baax a baax bàyyi la nga nuyoog mbokk internet di ginnaaw retour bi Baye Mandiaye. bisimilah mu dant maa lay fay maa ngi sant yàlla julli si bi sant samay ñaari waajur di sama yaay gudd fan ak wér gu yaram ba mu fekkee sama njëriñ. papa yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na suuf sedd ci kawam ñu fi fekk ak ñu ko fekk ñëpp yàlla may ñu gudd fan ak wér sutura def si dëkk bi jàmm di nuyu aussi tamit waa fi ma nekkoon ku si mel ne Badara lay siyaar baax borom Maroc ah maa ngi lay siyaar naa taxawaay bi di nuyu aussi tamit Badara di nuy Elton Elton maa ngi koy ak Fanta sunu série bi non Elton Maroc la ne maa ngi koy mooy Bakary quoi maa ngi koy nuyu moom tamit gis naa taxawaay bi di nuyu Fanta Seri Badara di nuyu ñoom Ibou Socé ñoom Amana xam nga waa Morog yëpp maa ngi la di nuyu gis naa taxawaay bi di nuyu aussi tamit Marle borom Géejawaay lii bu amee a cause de moom la moom it jàpp na ci bu baax Marle maa ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal jàmm waaw di la bégee bu baax di la wax kontaan naa si yow di nuyu tamit waa Caaroy Caaroy combat bi combat waa Caaroy la parce que gis naa seen taxawaay ci man man doomu yaa ngi comprendre est di nuyu waa Caaroy bu baax di nuyu waa Géejawaay di nuyu tamit xam nga xale yu jigéen ñi dëkk sama koñ gis naa challenge gis naa lépp ku ci mel ni ñoom bébé an naa xam nga ñoom tamit ñoom géwal xam nga ñoom jee ak gars yi daal waaw booy jigéen yëpp su ma limee rek damay juum booy jigéen ñëpp nuyu naa leen gis naa seen taxawaay ak booy dëkk ko ñu njaay booy jigéen ñëpp tamit mm-hmm. waa fuur fuur boo yëpp waa maasu bees tamit maa ngi leen di nuyu di nuyu waa Darkase Njett Mbaar xam nga waa guy guy gi tamit aussi tamit maa ngi leen di nuyu bu baax waa Gunaas Ceddo gars yëpp maa ngi leen di nuyu sam booy tamit mhm. ñoom Kaaw maa ngi koy nuyu di nuyu Cheikh Papa Ndiaye mhm. Papa xam nga mhm. Cëngala Ndiaye xam nga di nuyu Cheikh bu Baye ma Ndiaye tamit di nuyu sama gars yëpp ñi moom jarul ma leen nuyu di nuyu Bayal Thierno Mbaye Moulay Babacar xam nga Moussa Balde sama jour ak sama fils Palaay maa ngi koy nuyu baax. booy yëpp rek nga di nuyu sama booy yëpp. boo limee rek da ngay juum ñoom Ama Khoulé Bamba Ndiaye. ak Mouha sama booy. xam nga sama Mouha si na bër bi. Mm. xam nga moom it gis naa taxawaay bu mu am ci combat bi. Mm. sonn na si trop bàkki alxuraanu di nuyu samay ñaankat tamit. képp ku may ñaanal rek maa ngi lay woo ci combat bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ok man Ndiaye lan moo waraloon voyage bi c'est la première fois wala. no daa tombé rek daa tombé rek. ñun préparé woon nañ ko bu yàgg dafa tombé rek parce que ñun tamit. ñun nekkul combat bi kase la ñuy bëri quoi. bu buñ si jugee dañuy bëriwaat. n'est-ce pas. waaw looloo tax quoi. Mhm. waaw mais du combat bi moo tax ñu voyage dañoo voyager pour suñu carrière. ok mhm. ok tey euh, bi ma la gisee mi ngi may fàttali ma njaay bi muy bëreek ay saara ay Hercule ay doomu parcelle lan moo waral nga andiwaat forme boobu vivacité nga bëgg rapidité nga bëgg wala lan moo tax nga travailler comme lii quoi. non damaa liggéey rek teg ko si yoon xam nga entraîner rek te ko teg ko teg ko si yoon. loolu la rek mais man moom bàyyi xale laa man nu ma bëgg a mel mun naa ko mel. Mm-hmm. Mm-hmm. xale laa quoi. Mm-hmm. ok combat bi ban importance la am sa carrière parce que nag avant muy taxaw coow li bari woon na jeex jàmm dafa ragal Baye Mandiaye Baye Mandiaye dafa ragal jeex jàmm lan moo waral combat bi taxawul groupe whatsapp yi tiktok bi macha allah ngeen écoupé fépp ba combat bi mujjee taxaw. non du kooku du nekkul woon maak moom yow mii xam nga li ma lay wax bu ma gars yi nangoo we jël du du du du moom quoi dëgg yàlla mais peut-être gars yi dañ ma nanguwul jël loolu rek moo tax mais ma yow xam ngeen man li ma def si làmb donte ne xale bu ndaw laa mais man sama amul sama benn moroom bu ne ci làmb bu la neexee nga limal ma fii nga toog bu ma gën palmarès ci làmb amul. waaw mais kon man lan mooy lan mooy problème bi parce que suma ma bëree sama benn moroom ñu ne ma combat jànk nan laa jógee ci mëñu carré tourné waat di bëriwaat ak jeex jàmm xel nanguwu ko sax. yaakaar da ngaa tourné. damaa tourné bu baax a baax xel nanguwul loolu ba pare làmb ji yéen gis ngeen nu mu demee du lépp la ñuy wax. yaa ngi comprendre waaw ah, mais ñi ngi suñuy entraînement mais bu bis baa incha allah man dinaa ko wan ni du du du man ak moom quoi. di nga kan. non moom dinaa ko wan dinaa ko wan ne du maa. Ah, boobu yaa ngi ignoré boy bi quoi moom ngay wax wala kii bi quoi. non non pas pas pas ignoré. mais damaa xam ne rek. sa adversaire la nu mu tudd. bàyyi yàlla jàpp ma tur mais dama dama dama dama dama. non non non non du loolu de damaa xam ne bu dee. maam moom non du sama adversaire. parce que moom lépp lu muy jaay ci làmb man dama ko jël dugal ko sama poos toog ak moom. attention de. jeex jeex ma laaj la yow. waaw ak sa ak sa ak sa carrière yow sa àdduna li nga si bëgg yàlla boo ko am jeex jaam mën na bëri. bu ma dugal booy yow laay laaj tontu ma. bu ma li nga bëgg sa wu làmb yàlla boo ko am. waaw léegi dama laa laaj jeex mën na yow yow bu la lem wax tegal sa seen kayitu kër si jeex jaam ak Baye Mandiaye foo koy teg yow mi boo wéetee xam ngeen si Baye Mandiaye laa koy teg. man ci Modou Anta rek sama boy bi dëgg. waaw ah, loolu la ko bokkuñu sax jeex bokkuñu c'est que jeex jaam. da nga ko dàq bëree yow. waaw dañoo yem. mu doon da Adja njaawa heure bi. naaj téeméeri junni yoon bokkuñu sax qualité bëre si dara. maa yow ça va loolu waxaale wu ma ko ak moom sax eh, waaw loolu du man ak moom quoi ah moom laa lay wax ne loolu du man ak moom ay fit ak ay genre business yooyu loolu du man ak moom du moom laa koy incarné la quoi. mais gis nga dernier combat am wane na fit parce que bu amutoon fit day ruux ñàkk combat bi diggante mu fëgala bu ngor xeex bu metti bëre bu metti ah, man ngay wax ay waxu combat bu metti ak xeex bu metti bëre bu metti xam nga yow xam nga yow man ba ma lay xam du tey. waa léegi nga waaw mais question la faaw nga tontu ma ci loolu. waaw moo la bëre nañ macha allah. Hmm. ah mais man loolu seetaanu ma ko sax. dégg laa ci am ni parce que aw ma jot man dama concentré wu ci sama bopp. parce que li topp sama ginnaaw daa bari bëri quoi yaa ngi comprendre li sama ginnaaw daa bëri. waaw hmm. ah, dama concentré wu ci sama bu mu. moo tax mais mais est-ce que umpale woo jeex jàmm nii ngay waxee wala da nga xaw a réservé wu. mu loolu xaaral maa fàtte. ah non xam naa la depuis 2016 booy la dëgër maa ngi ca kaw toow. man ngay de. Modou man tëbu ma nii rek dem bëre arène de man damaa bëre mbapatu koñ fii nii comprendre nga jóge fa dem ci àll bi bëre fa jël ay nag yaay ngi comprendre doogo dem arène te ba ma demee arène damaa tegle huit combats huit victoire man ngay waxal de barki maam Seex Rafal suñu ñaari yaram bu dalantee ma daan ko ci lu yomb. ñaari yaram yi bu dalantee suñu ñaari yaram yi bu laalantee. la may laam xam nga dama leen yàgg wax dama mën a bëri mais peut-être ba tey nanguloo leen ma yéen yaa ngi comprendre mënoo ma nangul ci jeex parce que du man ak moom man sama bët teg naa ko feneen fu dul jeex jàmm. mais góor mosu koo def loolu de yaram laalante mu jeex. góor mosu koo def loolu de mbër koo def loolu. mu naan kooku kooku ñaari kele la yor ñaar. muy ban non loolu lu ñu wax. ñaari kele kese la si ci laam. ñaar laam loolu du lu ñu wax. te bu la ëppul doole mënu la ko def moom moom xam na li muy wax bu baax te man góor ëpp ma doole man góor ëpp ma doole doole laa la wax góor ëpp ma ko mhm. góor buy dund ci àdduna rek ëppoo ma doole mun nga ma mag mais ëppoo ma doole. yaa ngi comprendre te bàkkee alxuraan. Mhm. laa la waatal li ma li ma li ma li ma li ma tuuti mooy man su ma jógee ci kii nii est que gars yi dinañ dinañ nangoo man Modou gars nañ ñëw bëri man. ndax lan ndax boo jógee ci kii gars yi parce que dañ maa ñemewul. lu ñuy ragal loolu laaj naa la ko parce que gars yi bëgguñu bëgguñu bëgguñu mbër bu am fulaak fayda gars yi boo amee fulaak fayda dañ lay moytu man waroon naa weesu fii nii si làmb bu yàgg yéen tamit da ngeen si am pas de responsabilité yow moom parce que da ngeen di def seen émission gaan mais da ngeen a fàtte Baye Mandiaye lu mu def si làmb damay suivre lépp Modou fii amul benn booy bu mu fi gën palmarès Modou man dix victoire la deux défaites Kaaw Gourdin moo ma daan ak tee mars samay ñaari magama daan ci làmb te daan ma mun nañ daan ku ne man sama morom yëpp dama leen a jeexal yaa ngi mm-hmm. si am na ñi ngeen di lim fii nii ñii di wax ay ay gamer ñii di wax ay ay mbaam ak ay ay business non dama lay expliquer dama lay expliquer lu leer. ay ay mbaam ak ay. gamer waaw ñooñu ñëpp ku si nekk ñaata combat nga am ay cinq lañ am six. Mm-hmm. ay benn défaite deux défaites mm-hmm. cinq victoire mm-hmm. man ma am dix victoire bërëg ay bébé bismi ay saara Hercule Kooba Mëñi Kayre Albarka Kayre doomu parcelle agogo ah bébé bismi almaami dañ waxante dëgg te yéen gaan da ngeen di jël ñooñu aj jël boo yoo xamante ni dañoo ñafe seen laa bay si gaan bëgg leen a suul làmb woon moo moo doy waar du yoon quoi mais ñun nag ay xale la ñu ngi suñu yoon di liggéey moo yaa ngi ñun ñu ngi suñu yoon du liggéey ay xale yu ndaw lañ yàqamtuwuñ dara suñu carrière waaw mais man làmb kafuma ci réew ma ci ñoom bërël bi may bërël ba muy dem di wër ji ay sëriñ di dugg ci àll bi man maa ngi wut doole. waaw buñ duggee ci géew bi dinaa ko wax ne làmb du loolu làmb leneen la. lan moo la wax ne ci sëriñ la ko wekk booy. ah du ma sori ci loolu mais dama laa wax rek buñ duggee ci géew bi dinaa ko wan ne man damaa judd juddlu wax la loolu. juddu ma nii rek ñu baay ma mm. damaa judd juddul yaa ngi may dégg dégg nga fa may waxee waaw bu ñu duggee si géew bi naa ko wan ni làmb du loolu. ok làmb du loolu euh, ba tey tamit ci seen combat bokk na ci combat yi amateur yi gën a xaar est-ce que mën nañu xaar comme moom ak Feugeula bu Ngor comme yow ak Hercule combat bi répété waat même chose jour le 28 juillet incha allah. donc bii mënul répété wu comme noonu parce que moom bu ma ko joxee du ma wecc boo joxee du la dellu bu taxawee laa la wax suñ jàppante bu ma defee benn kele du ma wecc day jéem a dindi te bu dindee incha allah ci kàttanu yàlla. amul bëre bu la wecc boo bëree ci kaw ban bëre la am bu ma wecc Mourou ma damaa mën a bëre pire nag laa la wax man bëre lépp laay def man bëre aw ma ay benn kele ñaar ñett de man lépp laay def wa laa tous de bois xaw ma nu ñu koy waxee noonu. Mm. boo boo tamit mënu laa wecc. loolu loolu loolu anyway mais maam dama laa wax na la ci làmb moom lu muy jaay man dama ko ngëpp nii téye ko sama loxo toog ak moom est que yaa ngi comprendre fi ma waxee Jeer Jaam mm. ba mu juddoo ba tey mbër bu mel ni Baye Ma Ndiaye. mosul am adversaire non yow sax xam nga loolu. pourtant am na ay Ibou Afia. Ah, fi mu jaar booy mënoo fexe ba duma la ko wax. waaw dama ne la. mosul mm. am adversaire bu mel ni man yow xam nga loolu. yow xam nga ni mosul am adversaire bu mel ni Baye Mandiaye te bu jugee ci man du ko am ba ba muy dee. ok te di ko ko woon ci géew bi ne ko mosoo am ku mel ni man. force la loolu. mënu cee mucc mënu ci dara loolu force la. mënu leen a yegg mi temps yow ak taxawee la duñ fa yegg yow xam nga ni man du ma arrière yow da nga gis ma arrière du ma arrière te du ma du ma ñafe sama laa beeg si fii ni benn jeex jàmm mi gaan di ma di ma waye ok fan la la combat bi toll parce que gis naa booy wax carrément neer yi day jóg day mel ni sedduñu la cër wala waroon a bëree kii lan lan moo waral communication bi. waaw du lu ñuy wax loolu sama xol laa koy téye du lépp la ñuy wax àdduna boo fi nekkee du lépp ngay wax waaw hmm. ah, me man xam naa ku ma doon quoi. man xam naa ku ma doon ta xam naa cër bi ma am ci làmb. yaa ngi comprendre. ok ci côté mobilisation promoteur bi génn na devant le public wax ne. képp ku fa ëpp mbooloo am nga 1100 seen dernier face-à-face nga yóbbaale sa kayitu terrain am titre foncier. non man loolu loolu du kaa man man tànk yàlla mi ngi may may gudd fan ak wér man damay am ay këri kër loolu ku mu ne sa wërsëg yàlla nga ko jël man loolu bàyyi moo xel maaye ngi sama yoon di entraîné di waajal damay ñëw bëre si sama yoon nekkul si ay terrain yooyu. mais tamit si code de popularité. kenn ku ne non attends attends da ngay mobiliser say morom dañuy mobiliser say supporters aussi tamit lan nga leen di wax parce que ñi ngay jàkkaar di ay Aliou Fat Fat ay ñoom presse ay ñoom jeex jàmm tamit dañuy andi mbooloo te say supporter bëgguñu kenn yóbbul leen ko. waaw ñooñu ñooñu même bu ñu indiwul dara sax man ma andi ko ñoom nañ jël kër tere bi jox leen ko ñoom ah, Aliou Fat Fat wala ñu waa comme ñi nga lim ñooñu yaa ngi comprendre hmm. borom karaw bu ñuul ñaaxul dara hmm. man li may li may li ma gëm. moom man li may am maa ña ñafee sam bopp wéeru ma ko ci ma indi suba teen jox ma kayitu kayitu kër hmm. wala kayitu tere ku ma ko jox ma jël nag mais man damaa fukki ci sama làmb fukki suma ci loolu. Hmm. te nag lu doole di maye ak jom ak fulla ak fayda. non moo du ma ko ñaax. te gis nga dinaa la dinaa la wax dara amul jom doo am. Ah, waaw te boo amul fitit doo am. Hmm. ragal du am. Hmm. te man xam naa ni jàmbaar laa ko waa. yaa ngi si. te Modou man man li ma yaakaar daa bari man man si terrain famille laa man man damay xëy di def mm-hmm. man waruma échappé ci làmb mm-hmm. parce que làmb mooy sama métier aw ma beneen métier bu dul làmb ba pare ma dëkk si gox boo xam ñëpp ma yaakaar mm-hmm. man caaxaan waruma yaa ngi si dama ko waxoon ci albarka Kayre gëmuñu ma woon te man ak albarka Kayre matuma 50 kilos albarka gis nga ni mu ni ma toll. ku seetaan làmb jooju di nga di nga di nga ma bu baax di nga xam ne boobu bëreegul si làmb ma ne albarka kay nga daan ma nga jël sama bakkan moo ko gën a kii moom double bi laa koy tegal. double jeex double bi laa koy tegal. am na solo soo bonne presse jàpp nga wala jàpp ko. le 23 waaw le ma bàyyi la nga woote tamit tàggoo. waaw di di santaat yàlla bu baax. xam nga di bëggee sama gars yi taxaw fii yëpp soose bi maa ngi lay siyaar aja sama fils sama baay faale fils waaw bëggee naa leen ñëpp di bëggee gars yi nag gis naa gis naa seen taxawaay bu ñu am si man ñoom aada gars yëpp gis naa leen fils sa waay rek na bër la nga waaw di bëggee sama boo yëpp booy fi taxaw yëpp dëgg yàlla waa guy gi moom waa caaro man aw ma seen fay ñoom papi sax ñëpp maa ngi leen nuyu Cheikh Jémbe xam nga dafa am tey loo xam dañ ma dañ ma ko sas aw ma seen fay bu mu jugee ñëppay jug caaro yi géejawaay di nuyu tamit ron kot su kot su ron waaw Alioune Seye ñu koy nuyu ak waa école waalo yëpp ñu leen di ñaanal jàmm ak mburu géejawaay yëpp ñu ngi leen di nuyu yaa ngi comprendre la dëggeer Deo tamit ñu koy ñaanal waaw fi mu ne yàlla na fa suñu borom génne parce que natu nattu du wees moom jantal grand la nit ku baax la mais nit yàlla daf ñu bind ci pour ñuy juum di def erreur yaa ngi comprendre nit moo matul rek mais wallaahi loolu du du sax jikkoom nit moo matul te nit mooy juum ñu koy ñaanal rek yàlla na la yàlla génne parce que foofu du sa place nga dellu si waat suñu loxo parce que soxla nañ la trop trop trop la dageera ah. ñu ngi lay ñaanal jàmm bu baax moo di nuyu waa guy gi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waa Caaroy ñëpp ak waa tamit waa tamit kii lu mu tudd sax waa kii banlieue treize sam booy fàllu tamit maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla indiwaat suñu loxo léegi di ñaanal tamit seex bi Assane maa ngi lay nuyu baax di la ñaanal yawit yal na la yàlla indiwaat suñu loxo comprendre nga di ñaanal tamit ñoom ñàkk saw ñoom kasa ñàkk saw bu dëkk Baxdaat maa ngi ko ñaanal ak bépp doomu géejawaay bu nekk campenal 100 ak xubantaan ak foo nekk ñu ngi lay ñaanal suñu borom génnee la fa di ñaanal ñëpp jàmm waa forbeek ñëpp yal na yàlla def si dëkk bi jàmm comprendre nga saltige maa ngi koy woowaat moo daan bul dagg lii de saltige maa ngi koy woowaat sama yaay sooy yaa ngi comprendre ak waa Thiès sëñ Mamour maa ngi koy woowaat bu baax a baax a baax di woowaat Babacar bu Malika déglu lu ma wax baax Babacar borom Malika maa ngi koy woo bu baax a baax a baax Bamba bu Malika tamit maa ngi koy woo bu baax a baax a baax yaa ngi comprendre ak tamit amet borom film laa maa ngi koy woo képp ki nga xamante ni da ngay ñaanal Baye Mandiaye maa ngi lay sàkkuwaat nga gën ma ñaanal gën a jàpp ci combat baax a baax a baax a baax ak xabaan yow it maa ngi lay woo bu baax a baax a tamit waa Foundiougne bu baax. waa Zik Zik waa Ziguinchor tamit Ziguinchor tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm Ibrahima tamit Ibrahima watkat maa ngi koy nuyu baax ak Pa Saw Pa Saw Ziguinchor ah waaw ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu baax di ñaanal ñëpp jàmm ah. moo daan gudd na trop mais li mënul bi ma nekkoon dañ ma jàppale Modou yow yow jantal meen nga yow it ma nuyu yow ku baax nga bi ma nekkoon tamit dañ ma taxawu bul daggali baay ji dañ ma taxaw ku si mel ni ku si mel ni ku si mel ni sama doomu ndey Elton mm. Fanta mm. xam nga. waa kër gi yëpp Badara waa gaale bi yëpp maa ngi leen nuyu di wax gis naa taxawaay bi kontaan naa Moura kontaan ci yow jàmbaar bi. <laughs> macha allah mbokk mi ngi noonu Mandiaye lañ jël si woon tey fii tamit gars yi teeru ko fii bi ñuy commencé yaakaar naa ba tey gars yaa ngi ñëw di leen jox di daje ba beneen yoon booy wan la. loo wax pël bi yow. yaa ko booy ndaw yi yëpp gis nga dañ bëgg booy ndaw yi. ah waaw yéen ñii ñëpp nuyu naa leen du kontaan ngeen bu la yéen ñëpp Assane. ñëpp dawal kat sareet yi waaw dawal koti moto yi cag-cag borom sareet yi arma njaaxu bu ah? jàng bi ñoom mëgey ñoom ñëpp la ñëpp maa ngi leen woo nante yëpp maa